waa xam nga euh, projet yi boo leen tege il faut muy am suivi parce que à chaque étape peut-être euh, ñu ngi ko bàyyee mën nañu am nañu xalaate ñoo xam ne nii méngoowul ak vision wu municipalité bi loolu moo tax de temps en temps c'est important di def le tour euh, des investissements di def suivi tey Fandane dañoo waroon a réceptionner château d'eau bi parce que je crois que lépp mat na tabax nañ ko ba mucc ay bañ peinture ko ñu de clôture bi pare na donc dafa dajewoon tey ak Alpage muy cabinet de d'étude bi cabinet de contrôle bi pour que véritablement ñu mën a réceptionner ouvrage bi ak entrepreneur bi population yi je crois que loolu lañ xëyee tey ñu njëkk ko def deuxième étape bi ñu dem Warang mu am fa ñaari infrastructure mu ci jiitu muy centre socio collectif nga xam ne tàmbali nañ ko gros œuvre yi fondation yi pare nañ ko ba génn na bu baax donc je crois que c'est en bonne voie waaye la jeunesse aussi euh, surtout ñu yëngatu ci wàllu tourisme am fa benn espace bu xaw toll ci un hectare en bordure de mer soxla fa ay projet ma àndoon nag la direction euh, des investissements et aménagement touristique bu ministère du tourisme lu war ñu gunge ci aménagement aussi boobu pour que lépp lu mu jumtukaay yu mu laaj ci wàllu tourisme li en tout cas service yi accompagne tourisme ñu mën ko fa def pour que la jeunesse de Warang et de toute la zone mën di fa yëngatu ci wàllu tourisme boobu aussi amoon na solo topp étape boobu troisième étape ñu ñëwoon Pointe Sarène ku xam ne village artisanal bi ça nous tient à cœur parce que a def ne benn lay doon ci Sénégal euh, entrepreneur bi déjà assainissement bi mu fa def njëkkante ak nawet bi waaye tamit mu commencé di changer waat village bi ba pour jox ko beneen xar kanam donc je crois que liggéey bi am na solo trop avancé na mais ku xam ne Pointe Sarène xam leen ci football puisque ren ñoom ñoo la finale zonale la final communal même donc tey nag wax dëgg yàlla yeyoo nañu ñu am stade bu mucc ay donc foofu ñu fay démarrer benn stade boo xam ne bii nuit de clôture bi lañuy ñuy en tout cas foofu tamit jaar nañ fa visiter démarrage travaux yooyu ñu mujjee nag fii ci Roff nga xam ne euh, on a deux projets sociaux yu am solo yoo xam ne yi projet Demba Ba bi muy centre de euh, de football bi nga xam ne da tabax Roff retombées yi moom mooy ñaari projet sociaux yu am solo muy la maternité de Rof nga xam ne ne Rof am na poste de santé mais amagul woon maternité donc Demba Ba financé woon maternité ñu tàmbali ko ba macha allah liggéey am nañ fu mu toll waaye tamit foyer des jeunes doonay jigéen ñi ne xale yi jeunes yi tamit ñu am ci part muy foyer bu mucc ay bii nekk suñu ginnaaw nga xam ne tambali nañ ko moom tamit ba génn na ba am na taxawaay boo xam ne ñoo am yaakaar. ñaari projet yi du yàgg dara ñu war ko mën a finaliser exceptionné ko livré ko. Euh, fële ci Fandane euh, gis nañu forage bi taxaw na euh, ndox mi kañ lay génn kañ lay egg. waaw xam nga forage ay étape la. château d'eau bi tey lañ doon defar am na teen moom mooy du forage bi dëgg waaye ku nekk xam na ne château d'eau ba fa nekkoon château d'eau au sol la maanaam château bu tegu woon ci suuf la tey nag boo defee château d'eau en hauteur vingt dafay laaj pompe bi nga changé ko donc def nañ commande pour changer pompe bi raccordé ko ak château bu bees bi waaye tamit réseau bi ku nekk xam na ne réseau bi euh, am na ay amo yu bari biir Fandène réseau ndox mi àggu fa loolu tamit def nañ étude bi ba pare conseil municipal lañ war a délibéré vendredi bi di ñëw incha allah pour que xaalis bi war a jëm ci réseau boobu ñu voté ko ba xam ne paquet si lay doon complet ñoo ngi am yaakaar ne daal fii peut un mois loolu yëpp war mën a pare parce que loolu nawet war ko fi fekk Hmm. fële ci warang centre sociaux bi euh, sur fonds propre la wala da ngeen te am ay partenaires nan lay def. waaw centre socio collectif yëpp bi ma tudd yëpp sur fonds propre la muy château d'eau bi muy centre socio collectif boobu warang bi donc sur fonds propre la effectivement gros œuvre yi lañ tàmbali euh, bu Malicounda Bambara bi gros œuvre yi pare nañu ñu war a def euh, finition yi donc bii nag ci gros œuvre yi lañ toll. mais financement wu municipalité bi la à cent pour cent. Hmm. Euh, foofu ci plage bi tamit euh, gis nañu espace bu yaatu foofu euh, concrètement lan ñu fa bëgg a def pour lañ ci bëgg a def ngi ciy réfléchir en tout cas li jeunes wax mooy espace boo xam ne bii day offrir ay services au tourisme ku nekk xam ne ne Pointe Sarène station balnéaire bu bees la et que la zone entre Warang ba Pointe Sarène yëpp zone touristique la. donc mais amoo benn place makkaan boo xam ne di nga fa mën a offrir ay services mel ni ay restaurant mel ay fa ñuy jaay œuvre bu ñuy defee ay yenn sport yu adapté au tourisme ay activité culturelles donc espace bi noonu lañ ko bëgg a ci yooyu thème lañ ko bëgg a bâtir euh, architectes yi ñoo ngi xalaat en relation avec la jeunesse mais yaakaar naa ne bu génnee maquette bi dañ ko won ñëpp ñu xam ne bii projet lañ soxla ci place boobu. Pointe Sarène kañ la ñuy livrer village bi. Pointe Sarène waa ji nee nañu maximum dans ñu ngi am yaakaar ne dans deux mois peut-être euh, fin août au plus tard lépp war na mën a pare. ci suñu yaakaar en tout cas ni muy avancé am nañ yaakaar ne sax balaa date boobu war nañ ko livrer donc et que avancement travaux yi jox nañu yaakaar bu rëy ne euh, promesse boobu war nañ ko mën a respecté.